ci des itam lii nii euh, bon ñu ngi leen di déglu euh, information yi ma ci am ak as en tant que journaliste ñu ne luy maanaam Sonko bouche bée du wax

du ma wax ak kenn parce que li war a leer leer na li ñu war a wax wax na léegi nag nekkaat fa nag mu naan la Demba nga naan ko Samba yaa ma def lii defuma lii loolu loolu petit camp la sas nga baal ma xam nga waaw wax tamit kii nga ne li war a leer leer na waaw li li war a leer mais gis nga gis nga li war a leer xëy na ñu ñi ñun la leer mais gis nga gis nga juge bi yore dossier bi nii ak ñoom Sonko ñu ak ñoo la gën a xam li xew. Mm. xëy na kay dañ ne yoon nii lay tëddee nañ topp yoon ba mu jeex nii tey lii war a def nangam loi sangam lii la wax nañ def lii mais mbir mi li ci war a mën a leer leer na. Mm. ñu wax ko ak ñu bañ ko wax léegi nag fan la leeree foofu la problème bi nekk ndax ca côté bee la leere wala ndax ci côté bii la leere waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo séq dossier bi ñoom li ci xew xam nañ voilà d' accord oustaz Maodo Faye jërëjëfati kon Serigne si Sylla yow itam. Euh, waaw canoo bi noo ko gisee. moom kay xanaa masawuwaat sénégalais yi rek. ndax lii moom actualité la boo xam ne xam naa bu fekkoonte ne aw nit dañu fay xaalis ngir mu jeex ñu war a daje jeexal ko bu doon ab série la itam boo xam ne ab ah, scénariste ko bind dañ ko naan defal épisode fin bi nag mu jeex ndax vraiment nit ñi dañ ciy. dañ ciy dañ ciy bëgg a sonn. te neexut a wax maanaam day mbir moo xam dafa naqaree dafa naqaree waxtaane mm-hmm. euh, tey jii euh,